ngi neex mat yubadil ni'matallaa képp ku changé la yàlla bi mooy lan lim la yebal ci téeréem bi lim bind ci téeréem bi nga changé ko dafa lu la neex min ba'di maa jaa'athum gannaaw ba mu ñëwee ci yow mu leer nañ mat sëkk nga ko dafa lu la neex foofu sa téere bi fa inna allaha shadidul iqaab na nga xam ne yàlla moom ku tar mbugal la zuyyina lillazina kafaru rafetal na ñi nga xam ne nii dañoo weddi yàlla alxayaatu dunya àdduna bi àdduna bi dafa rafet si ñoom trop dañ ko bëgg wa yasxuruuna ñuy saboote min allazina aamanu ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mooy jullit ñi wallazina taxaw ak ñi nga xam ne dañoo ragal seen boroom ñi nga xam ne dañoo ragal seen borom yowmal xiyaam fawqahum ñoom ñooy faree kaw yowmal xiyaam fawqahum yowmal yow ma xiyaam ñoom ñooy faree kaw wallaahu yàlla yarsuqu man yasa mooy wërsëgal ku ko neex bi xayri xisaab te du ko laaj dara yàlla mooy wërsëgal ku ko neex kaana naasu ummatan waaxida nit ñi daal benn xeet lañ woon ñëpp benn xeet lañ woon fa baasallaahu nabiyina yàlla yebal ci ñoom ay yenent mubasirina ñuy béggal wa munzirina ñuy xuppe wa anzala maahum wàcc ànd ak ñoom alkitaaba téere bil xaqi mi wax si dëgg li bay na naas pour ni ñu àttewoo seen diggante fii maxtalafu fii si li nga xam ne ñu ngi koy wuutee seen diggante wa maxtalafa wa maxtalafa fii wuutewuñ muy yow deg nasaraani wa maxtalafa fii wuutewuñ ci seen téere yi illa allazina utul kitaab loolu ñoo xam ne wàccoon nañ la ñoom téere mooy daan yahuud nasaraan yoo xam ne amoon nañ seen téere ñuy wute seen diggante min baadi ma jaatuhum gannaaw téere bi ñëwee leer nañ albayinaat ay firnde yi baax yaa ndax mbeewte dañoo wedd ndax beew moo tax ñi doon werante seen téere yi ak noonale bi nekk seen diggante fahadallaahu yàlla nag jubal na allazina ñi nga xam ne amuna gëm nañ muy jullit ñi li maxtalafu fii ñoom li nekk seen téere te ñu wuti si dañ si dañ dem àttiwoo ko li maxtalafoo fii li ñu wute seen diggante dañu dem seen bañ a àttewoo li nga xam neexul seen téere yi ko waaye jullit ñoom duñ def loolu lépp leen yàlla waxal moom lañu def seen téere bi ñu àttewoo ko moo tax kon ku dañ ko war a rey dañ ko war a doxal ndax ñun ay jullit lañ yàlla la wax seen téere yi li maxtalafoo fii li nga xam ne wut nañ seen téere yi moom lañ war a àttewoo minal xaq dëgg bi isnillah ci coobere yàlla inna laaha naka yàlla yahdi mooy jubal ma yasa ku ko neex ila siraatil mustaqim si yoon bu jub bi am xasibutum ndax da ngeen jota yéen jullit ñi an tadxulul janna da ngeen dugg na noon rek wala ma yatiyahum wala ma masalu yatiyakum masalul na xalaw duñ leen natt ko meñ natt woon ñu leen jiitu woon masatum ba saa u nekkoon ci ay xat-xat wa daraaw ak ay coona ak ay natt yu mett wa lu ñu rëng-rëngee seen diggante ñu yëngal leen bu baax a baax ay nattu ki xataa yaqulu rasulu bañ waxteen yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu yonente bi sallallahu alayhi wasallam mata nasrullah kala ndimbal yàlla di ñëw waay ndax ñun kat ñu ngi ci ay coono léegi wala zina amul ak ñi nga xam ne gëm nañ ñi laaj na seen yonente bi ne ko waaw ndimbal yàlla kañ lay ñëw mata nasrullah kañ la ndimbal yàlla di ñëw ala inna nasrullahi qarib yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ndimbal yàlla mu ngi ñëw balaa yàgg du yàgg ala inna nasrullahi qarib ndimbal yàlla mu ngi ñëw balaa yàgg ñu lay laaj maasaa yunfiquuna lan lañ war a joxe xul waxal maa anfaqtum lépp leen yor si yiw min xayrin si yiw si alal lépp leen yor si alal fali waalidayni jox la nga seen ñaari waajur wal aqrabiina ak seen i jegeñaale wal yataama ak jirim yi wal masaakiin ak miskiine wabna sabil ak doxandéem ko xam doxandéem la fa mu nekk dangeen koy jox moom it donte milliardaire la fa mu nekk fa mu jege waaye gannaaw fi ñëw na fi mënul jot sa xaalisam rek dañ ko war a jox maa tafaalu min xeyr lépp lan def si lu baax nag fa inna allaha bi alim yàlla xam na ko lépp lan def si lu baax rek na xam ne yàlla xam na ko